kon ni ñu ko waxee woon sànq rek ci li nga xamante ni moo jëm ci bisu tey bi nga xamante ni waa daayira waa Kaana Xan bu Caaroy ñu ngi koy amal ñu nekk ak ki nga xamante ni moom mooy jëriñu daara ji euh, di ki nga xamante ni moom mooy Serigne Adama Lay euh, ñu nekk moom nii na jamono ji bu war a ñun ci li nga xamante ni mooy bis bi wàccaay gi nga xamante na ci tamit euh, tey ji nga xamante nekk lépp li nga xamante ne def nañ ko si jëm li nga xamante ni moom mooy bis boobu donc Serigne ñu lay ziar bu baax ñu ngi delloo ziar bu baax murit di la jox sa waay di ziar di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi sëñ taxaar Basiir di ñaan suñu borom yàggal ko fi tamay ko wér ñu ngi noonu la ñuy ziaree mbooleem waa daayira Wakana Haqqan bi yëpp di wax ni waa bis bi moom gis nga ni nga xam ne moom lañ koy taxawee nga xam ne ren mooy sixième édition bi yàgg nañ koo ànd di ko yàgg amal ci amalin woo xam ne jàpp nañ ni ko sëñ Tuubaa waxee nga xam ne day dëppoog sunna noonu loon ko yàgg di amalee bis bi moom boo xoolee ren ni mu demee boo xoolee liggéey bi da nga xam ne am na avancement ndax loo xam ne ci benn fan lañ ko daan taxawal nga xam ne léegi bis bi mën naa ne ñaari bis la ndax démb rek boo xoolee liggéey bi door na kuréel yi presse nan maanaam yenn jànkati rajo si def nañ jàng kon nga xam ne avancement am na te mboolem waa daara ji boo xoolee commission yi li nga xam ne mooy organisation bi ñi ngi nekk waa waañ ak ñi nga xam ne ñoo nekk organisation baas ndax daa dafa nekk ay commission yoo xam ne leen lu ci nekk pàcc la waaye boo xoolee liggéey bu ci nekk ma ngay dox nga xam ne kenn jotewute sa morom dara mm. lu ci nekk rek am na avancement ndax bis bu masaan toll fii dañuy toll ci di soog a baas ak yu mel noonu waaye su fekkente ne base bi lu ci ëpp yemb na démb nga xam ne tey ay finition yu ndaw mooy des nga xam ne fii ak 5 heures war na ñoo mën a tàmbale yenn programme yi kon da ngay xam ne avancement am na mu mel ne ngeen nekk ci li nga xamante ni mooy juróom-benn édition donc yokkute am na ci li nga xamante moo jëm ci wàllu organisation beeg doxalin bi ñu mel mm. donc boo mu ne def juste benn genre jàngat ci euh, ji ngeen jógee ak euh, bu ren bi euh, donc yokkute bi nga xamante ne am na ci ak yéen yoo xamante ni dugal ngeen ko ci yoo xamante ni daanaka bokk woon ci édition yu weesu waaw bari na bari na ndax boo xoolee baas bi mën naa ni base bi moom yokku na ndax bu koo raan base benn baas nga dem ba base bi jëlee koñ ba koñ loolu da xam ne yokkute am na yokkute moom am na bu baax a boo laajee lenn ci xam naa dugg nga sax ba saytu liggéey bi yenn ci biir commission yi da xam ne loolu loolu yokkute la ndax bis bi ni ma la ko waxee loo xam ne da nga ko def benn bis mu dem ba nekk ñaari bis nga xam ne xéwal yi day tàmbale ci ñetti bis sax nga xam da ngay togg añ togg reer xëyaat nekkaat ci loolu fii ak ci kalam bu guddi gi gënee sori nga xam ne ñenn ci waa culturel danañ tàmbale liggéey bi organisation noonu durus bee kuréel yi teel ne dañ ciy a nekk kon loolu da nga xam ne yokkute am na yokkute moom am na bu baax a baax lenn ci jëwriñ yi nag boo demee ci lenn ci jëwriñ ci biir euh, pàcc ci liggéey bi nga xam ne jëwriñ bu ci nekk rek maanaam lam doxal moom ak waa commission nga xam ne lu ci bari am na avancement daal ndax loo xam ne mën naa ne benn jëwriñ moo ko daan taxawu bëgg a nekk ci commission bu nekk di ko doxal waaye fii ni boo xoolee liggéey bi avancé na avancé goo xam ne commission bu ci nekk am na bu koy taxawee xam ne jëriñu daar ji moom mën na ca bañ a sax yëngu ca ca wàllu woowu te lépp a ngi dox culturel moom yaakaar naa nekk nii ñoom ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu drus geek ndax euh, mën nañu am juste benn euh, kii bi ndoore fa la liggéey bi toll ndax ndax wàcc nañ fi suba ak ay caméra yu ni bi moom boo xoolee liggéey bi tey ci ngoon démb fan yi passé ñi ngi doon jàng alxuraan xasida waaye tey ci guddi gi nag lañ ko gën a saxal nga xam ne ginnaaw tàkkusaan bi jëm guddi ci la ñuy gën a saxal njàng mi nga xam ne loolu ñi nga xam ne ñoo ko jiitee muy jëriñ ñoom sëñ Maam Thierno Gaye ci liggéey yu am solo yoo xam ne chaque année boo xoolee buñ dursee ba guddi gi xaaj danañ am ay lim yu takku ci xasida nga xam ne sëriñ bi dëpp bind na ko mu dëppoo ci gàmm gi wàcc ay kaamil bu ko defee ñi nga xam ne ñoo nekk ci njàngum yëkkati mi nekk ci côté boobu ñi nekk ci waaj nekk ci côté boobu kon loolu moom am nag avancement moom it lépp taw feexe na lépp taw feexe na lépp taw na wax dëgg fa yàlla sant ñu ngi lay delloo jaajëfal bu baax a baax ñu ngi lay delloo jaajëfal di jaajëfal mboolem waa daara ji leen jëriñ boo xamante ne tamit bokk na ci li nga xamante ne moom mooy uh, daayira bi jëm ci nga xam ne bi bisu uh, tay bi jëriñ maam góor géey ñoo ngi lay ziar bu baax jëriñ jox sa wàccuwaay bu baax a baax uh, di tubaab baax rek mu mel ni li ci matoon wax yëpp jëriñ wax na ko ku gis liggéey bi gis niñ ko taxawee rek mu mel ni am na yokkute am na avancement ndax dañ daan pare buñ ne jour gàmmo ci ngoon gi tey nag boo ko xoolee démb ci guddi ba léegi kuréel yi ñu ngi presque lu mat ñaari kuréel ak ay rajaskat maanaam ay euh, commencé nañ bis bi man loolu rek yokkute la goo xam ni saa bu ñu duggee ci bis bi rek ay maanaam ni ko jëwri ni di jiitoo ci bureau bi di ko nas nas yoo xamante ni si nii dañuy teel a jublu ci liggéey bi laata kaa ñuy dem màggal Touba nga xam ne bu ñu jógee ci màggal gi rek dañuy daal di dal ci gàmmu gi ndax diggante boobu it ku nekk xam na ni at na maanaam dallu sa xaju fi moo tax commission yi dañuy teel a programme nas loolu yëpp ba nga xam ne rek saa bu ñu jógee ci màggal gi rek dañuy daal di jëm ci gàmmu gi nga xam ne nasu guñ nasu moo tax liggéey bi loolu lépp teel a sotti teel a yéwén waaw mu mel ni ci coté berne beeg euh, ni ñu koy waxee rek bi sukkarin aw la xam lépp yemb na waaw ndax loolu moom ku nekk xam ne daa bokk ci bis bi ndax wax gàmmu rek xam ni na ko Sëñ Tuubaa waxee woon te jàngalee ko noonu wax ni képp koo xam ni jël na alalam maanaam wala mu defar ay ñam fekk ñi nga xam ne dañuy dundal guddi gi di jàng alxuraan wala xasida nga dem jox leen ko kooku maanaam tuyaaba yooyu nga xam ne mu toll fa man taha man a di man la lahu xat xara mu bajj leen fa xaba xayraati ahlil himam yi mu mel ni loolu yëpp rek nekk ci biir gàmmu moo tax ñun dañ ciy def kem kartan ni ko sëriñ bi diglee mu nga xam ni dafa digle ñuy màggal si di màggal màggal gi waaye gàmmu moom moo ko daan defal boppam kon taxawaay yooyu lañ seetlu di ko def tey dara nag taxul ñu di ko def lu dul def ko ni ko sëriñ bi diglee tax si moo bi sunnati yaquduna lil jannati bis diyaadul minnati li mosi muasami loolu képp lañ ci euh, dabu ci biir euh, bis bi te xam ne lépp lu ñu am rek bis bi moo tax ndax bis bi moo ñu tee maanaam ñu nekk leneen kon moo tax ñu ci def lu man ak mënoon ni ko jëriñ ji waxee jëriñ daara ji sëñ Adama ku nekk gis na taxawaay yim ci am boole ko pas-pas ak fulla ak jom xale ba ci gën a tuuti képp moo ci gën a takku moo ci gën a taxaw ngir lan bis bi bañ di laal suuf te loolu képp moo yitte ji moo tax daal def nañ ci luñ man ak luñ ci mënul fas yéene rek dugg ci bismillahi rahmaani rahim egg ci ak alhamdulillahi rabbil ndax ko gis gaay ni ñu teew rek fu nekk nit jógee na fa fu nekk nit a nga fay di ñëw ci bis bi kon loolu rek moo war taxawaay yi ñu koy gën a defar nga xam ni commission yeeg commission yi am ci daara ji yëpp rek Euh, bu ci nekk rek am na ay jëriñ ñu ko jiite yoo xam ne seen taxawaay ku nekk xam nañ ba bis bañ koy waaj ba léegi ñu ngi ciy taxaw taxawaay mucc ayib ne loolu fee xaayande fee guddi a yëkkati xasida euh, euh, a ñëw ci li nga xam ne mooy bisu Sëriñ waaw jëriñ loolu mu mel ni dispositif boobu ñi nga xam ne ñoo yore comité boobu taxaw nañ ci taxawaay bu mat sëkk nga xam ni programme na lu mat daara yi nga xam ne dañ fiy ñëw di ànd ak ñun bis bi di suñuy wëlëree daara nga xam ne dañuy jógee fu nekk di ànd ak ñun bis bi ñooñu tamit def nañ ci commission bi nga xam ne moo yore loolu dox na ci ay jéego ba nga xam ne lépp loo xamante si ni rek ay matukaay la ci kuréelkat yooyu bu ñëwee mën a wéyal njàngum xasida mi di ko am ni ko ñu ko bëggee loolu jël nañ ci matukaay mat nga xam ne bu ñëwee danañ leen toppatoo ci war jox leen ñu yëkkati fii xasida yoo xam ne loolu tamit dañ jël matukaay boo xam ni ah, nga xam ne mooy kuréel yooyu dañ leen a tànn segg seenum njàng xool ko ba xam ni ni ñu bëgg bis bi diñuy doxee bu ñëwee njàng mi dañ ko mën a amale noonu nga xam ne képp ko fi toog rek di nga ko mën a dund maanaam ci mbégte ci bànneex nga xam ni buñ la joxee bernde ba nga xam si ni sa xol sedd na ñu dëgtal la njàng moo xam ni foo ko déggee rek da nga xam ni ñii dañoo càmbar ñi fi jàng xool njàng mi ba seet ko setantal ko ba nga xam ni képp koy diglu rek di nga ci am neexitu xol boo xam si ni yëg-yëg lay doon boo xam ni bu déwénee di nga yàkkamtee teewaat ci bis bi ànd ko ak mboolem daara ji kon mi ngi noonu ko mu nekk kàddu yi nga xamante ni jëriñ yëkkati nañ ko wax ci li nga xamante ni moo euh, ñeel wàllu bis bi ak taxawaay bi waaye tamit li nga xamante ni moo fa am ci wàllu programme loolu lépp ngeen topp ñu rek ñu dinañ ko wan euh, li jëm ci li nga xamante ni moom mooy cant gi dem ba ci li nga xamante ni mooy guddi gi lépp ci war a am daal yéen ko mën a seetaan fi nga xamante ni mooy Tawfekh Production ngeen topp ñu rek ci li nga xamante ni mooy seen chaîne télévision إلى ولي المؤمنين وسكون وجاء bi comme ni ngeen ko waxee ci li nga xamante ni moom mooy euh, bis bi nga xamante ni waa daayira waa Kaana Xan bu Thiaroye Gare ñu ngi koy amal ñoo fi nga xamante ni moom mooy waañ bi nekk ak nga xamante moo euh, jiite li nga xamante ni moo jëm ci wàllu euh, waañ bi ak wàllu benn yi donc ñu waaj wax ak laaj ko naka la mbir mi demee ak li nga xamante ni mooy wàccaayu bisu bi jël ñu ngi leen nuyu baax maa ngi ziar baax maa ngi sant bu baax tey ngeen nekk ci li nga xamante ni moom mooy bisub cant donc fan ngeen toll ci li nga xamante ni mooy wàllu bernde yi ak li jëm ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllu cantutaay gi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare bu baax di siyaare mbokk taalibe yi ak mbokk jullit yëpp ah, di rafetlu liggéey bu baax a baax tey ji ñoo ngi ci bisu gàmmu nekk ci daayira Wakana Xan Gaar mu nekk suñu huitième édition chaque année ñu koy def euh, ren nag ñu ngi ci 2022 incha rab yi di ñaan yàlla def yàlla defal ñu tawfiix lépp li nga xam ne ñu ngi ko fi def ci liggéeyal sëriñ bi sunu borom defal ñu tawfeex ci barkeb Serigne Touba waañ bi nag ñu ngi fii ñu ngi ci ak ñu ngi fi ak suñuy yaay booy suñuy soxna suñuy rak suñuy mag ñu ngi ci waañ bi fi ñu toll nii ñoo ngi ñoo ngi préparé reer yi nii añ yi ma nga ca waañ ba ca des bu baax a baax a baax en tout cas daal bis bi moom wax dëgg yàlla lépp luñ ci doon borom mi ngi koy jàppandal ndax euh, lépp luñ ci waroon rek def nañ ko incha allah rek ba ñu ngi ci togg yi gi nga soxna yaa ngi nii ci waañ bi ñoom ñu ngi ci bernde ñu ngi koy defar pour reer la mm. añ baa ngi fee ci ginnaaw am na tam yeneen yu xeetu xéewal yoo xam ne yëpp ñu ngi koy préparé rek mais comme xam nga fii dafa xaw a xat moo tax waañ bi ñu def ko ay waañu waañ mhm. waaw te loolu kon da ngeen da ngeen a def ay waañ yu bëri ngir liggéey bi gën a waaw euh, dañ daan def xam nga bërëb bi ku mhm. liggéeyal sëriñ bi rek da ñaan mu yokk mhm. année yi dañ ko def fii lañ ko daan yamale waaye dem na ba waañ bi xajatul fii moo tax ñu décentraliser ko am na ay weneen waañ yu nekk ci yenn barab xam naa insha allah rabi rek bu ñu ko jot gi may insha allah dinañ fa yegg ba liggéey bi bokk taalib yëpp mën see jot insha allah rabi waaw ñoo leen sant bu baax di leen gërëm ولسلم بالتسليم واذكر كل نافع سل والتسل boo bi naka la. Euh, man soxna Jox Samb laa tudd jërëjëf sëriñ tubaa jërëjëf Serigne Touba jërë maam Cheikh Ibrahima Fall. yaay booy dina ngeen nekk ci li nga xamante ne moom mooy cant gi euh, nga nekk ci waañ bi euh, liggéey bi fa la toll ak li nga xamante ne moo jëm ci wàllu bernde yi ngi war a jox gan yee ak li nga xamante ne moo ñeel wàllu bis bi ngeen di amal tey. macha allah macha allah gis ngeen ko xale yi gis ngeen leen en activité xale yi ñëpp takku nañu bërki dem mardi la liggéey bi démarré boobu ba tey ñu ngi ci liggéey bi di liggéey ñii ñu ngi ci ginaar yi ñii ñu ngi sax pombiteer yi ñii ñu ngi defar jus ñii ñu ngi dressé ñii ñu ngi séddale laax dafiy am ndekki mburu ak pain au lait dafiy am lépp dafay am kenn ku ci nekk ak mission bi la defar barget yi ñiy defar neem yi xale yi mobiliser nag ànd muy ñoom ñëpp bokk nday bokk baay bàyyi daayira bi loolu ma fi xew ñu di ko innové nag tey mooy suñu sixième édition mais vraiment chaque année dañuy gën a dem de l'avant di gën a yokk suñuy bagage suñuy bëgg-bëgg maanaam di gën a yokk suñuy carte d'invitation suñuy badge mbooloo mi di gën a ñëw te defe naa yoonu Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am te loolu rek lañ ci doon séntu boo mën li nga xamante ne ci ngeen amalee benn day euh, ni ngeen ko décentralisé euh, côté waañ bi mooy togg reer yi ñuy togg li nga xam ne mooy jëm si añ yeeg ñu xewali bés mu ne ñëwaat tuuti ndax ngeen ngeen a décentralisé li nga xamante ne mooy waañ bi maanaam ni nga ko gisee rek ndax daayira bi dafa am ay tuut tànk am ñu digg doomu am ay mag yu ci nekk mag ñi nga xamante ni ñooy suñuy waajur comme samay genre ñoom ñi ngi leen dalal ci kër gi ñu jàkkaarloo ñooy togg añ yi ñi ngi togg foofu ñetti mbana ceebu yàpp rey nañu nag rey ñaari xar bi nag beeg añ bi euh, nag beeg xar bi ñooy dem ci añ bi ak euh, barget yi beneen xar bi moom la ñuy michu ñeneen disket yi diggu doom yi ñu ci topp ñu ngi ci ruq bi ñooy sax pombiteer yi ñooy muusal ginaar yi mille ginaar jënd nañ ko euh, ñooy muusal ginaar yi ñooy Euh, defar pombiteer yi tout tànk yi nga xamante ni ñoom ñooy troisième groupe ñoo nekk ni ci mbirum liggéey bi raxas bi ménage kër gi affaire yooyu góor yàlla yi nag ñoo yor organisation bâche bi waaw. kon mel daa kon liggéey bi kon daa mel ne ren moom dañu ko organiser euh, ci noo xamante ne daal day yomb euh, fii fii ngoon ngeen mën a pare mën dem ci li bi. dëgg la dëgg la tey moom dañu gën a parce que dañ daan xaw a naajee di ñëw duñu mais tey bi ñu salaatoo rek la fi ñëpp tase liggéey bi ñu nekk ci macha allah di ñaan yàlla nag balaa dara xew naajal rek ñu pare ba mën a jublu ci barget yi ay kàddu yu ndaw rek jëm si nga xamante ne mooy seen jëwrin ak euh, li nga xamante ne moom ngeen amal at bu nekk ren mu mel ne ren dafa am yokkute bu ci bu baax a baax di leen sant rek nag di leen sant di leen ñaanal yàlla ndax ay xale yoo xam ne xam nañ fi ñu bëgg a dem xale yu am passeef yu bëgg sëriñ bi dañuy dem ci sëriñ bi ba jeex ndax fii nga gis ñuy defar bâche ñoo ñu bu guddee ñoo war a kuréel ñii nga fi gis ñu mag ñi ñooy kuréel gu mag gi dañuy ànd ñoo ñoom liggéey bi mardi ba tey ñi ngi liggéey te bu guddee incha allahu rabbi bu ko dara toppul ñooy toog ci page bi def kuréel goo xamante ne tubarkal ñu jël seen tànk rek teg ko fi is isbu tarxiya teg seen tànk ñuy xale yoo xamante ne nag kenn nekkul seen ginnaaw ndax léeg-léeg dañuy gàmm ba pare sax ñuy dégg rumeur yi naan est-ce amuñu ay ngand yu nekk seen ginnaaw mais ñoom lépp seen volonté la bu yëf yi egsee ñu génn lu ñu am wàcc seen lal yëlëb seen i poche jaayante yi ndax daayira bi sas yeeg ñëpp dugg na te kenn ku ci ne jaayante waan nga jaayante boo xam nag yi xar yooyu nga gis yëpp ay jaayante la diwlin yeeg ceeb yeeg ñëpp gars yi dañuy jaayante ba ci tout tànk yi ñoo jaayante mouchoir yi singom yi maanaam daal macha allah kenn ku ci ne da ngay bëgg di innover di gën a jëm kanam di bëgg a wane ni fii maa la gën a xër kon loolu dañ leen di ñaanal yàlla rek fi ñu teg seen tànk sama borom taxawu leen ba fi ñu bëgg a yeggale daayira Wakana ak xam sama borom suturaal leen sagal leen ba ناديتك اليوم واقراجيا ولي غديت دون شك آجيا ناديتك اليوم واقراجيا ولي غديت دون شك آجيا topp booba léegi fi nga xamante ni mooy Tawfekh Production jëm ci li nga xamante ni moom mooy euh, bis bi nga xamante ni waa daara yi ñu ngi koy def euh, ginnaaw bu ñu jógee ci waañ bi nag ñu ngi nekk ak yeneen jëriñ yoo xamante ni ñoom ñoo war a wax ci li nga xamante ni mooy jëm ci wàllu organisation bi li war a am tey si guddi euh, ci wàllu programme yu ni mel donc jëriñ tur bi naka la ak yow yaa yor ban kii ban cellule sëñ Ibrahima Gueye moo yor wàllum finance bi si bis bi Ah, donc ku ne wàllu finance jëm ci li nga xamante ni moom mooy jëm ci wàllu préparation yi donc est-ce que mën nga ñëwaat tuuti ci li nga xamante mooy wàccaayu bis bi ah, ci wàllu li nga xamante ni moo jëm ci ah, bis bi nañ ko taxawalee ak li nga xamante ni jëm ci lépp loo xamante ni génne nañ ko ci ay koppar yu di mel donc ak préparation bi mhm. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi lay nuyu di leen siyaarwaat baax di siyaar baax mboolem daayira wakkaana xaqan yëpp di si siyaar baax sëriñ munt di si jël sëriñ Muntaxa Basiru di ko ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te may ko ak wér ak mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa yëpp di siyaar baax suñu jëriñ sëriñ Aadama lay ak suñu yaay ma ami di siyaar mboolem daayira yëpp di am kontaan ak mbégte baax si bi nga yàlla bi fekk na waat muy bis bii muy bisu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñëwaat àndaat ko mbokki jullit ak mbokki taalibe ak mbokki daayira wakkaana xaqan bi yëpp bii di nekk de sixième sixième édition ñëwoon ci li nga xam te ne bii mooy liggéey bi nga xam at mu jot ñoo ngi nekk fii si caaro yi di ko fi amal mais comme ni ñu koy waxee saa su nekk liggéey bi Sëñ amul tànki ginnaaw tànki kanam rek lay am saa su nekk gis nañ si ay yokkute yoo xam te ne bii saa su nekk rek euh, ay ak mbette lay dikkee ndax at mu jot rek bu ñëwee rek at mi si bi nga xam te moo fi amaat rek day daal di gàccal at mi nga xam te ne bii moo si weesu waat daal saa su nekk rek bu ñëwee si liggéey bi day gën a fawxa saa su nekk si ni ni mu daan amee ci wàllum koppar yi ak lépp lu si daan am rek saa su nekk dañ si gis ak yokkute goo xamante ni bi saa su demee ba si bis bi rek dañuy xamante liggéey sëñ bi rek daal moo gën a wóor ndax lu si nekk rek saa su nekk mbetteel yi muy dikkee rek ñun sax duñu mën a xam fi ñuy fi ñuy teg programme bi ak programme bi fi mu ñuy fekk sax ñun tax duñ ko mën a xam ci ay xéewal yoo xam te ne bii mbokki taalibe yëpp ñoo ngi ko fi indi daal di ko ci barkeeloo ci bis bi mu mel ni moo jëm ci édition yi nekk juróom-benn édition daaw defal ngeen ko ren defar ngeen mel ne am na yokkute bu ci am ci li nga xamante ni ci wàllu préparation bi est-ce que mën nga ñëwaat tuuti ci li nga xamante ni moom mooy ni nga waajalee ren comparé ak daaw ni nga ko defee woon waaw waaw mën na see ñëwaat mooy li may wax sànq rek mooy mbégte leen ci amaat ndax mbégte mi sama mooy su fekkoon daaw danoo def ñaar wala ñett ren ji ñoo ngi si lu ñuy def rek 6 lañ ko def ndax lu si rek rek mën na ne am nañ sa yokkute loo xam te bi ñett lay doon bu dee si wàllum koppar tey ji am nañ si loo te ñett lay doon bu dee si wàllum bismil lépp loo xam te fi ñëwoon si matériel la rek ren yokkaat nañ ñaar yoo xam te bi yu si wàllum yokkar la comme ma mel ni addee ji sax buñ ko xoolee ak daaw addee ji ji rek day daal di defaat loo xam te bi soo ko xaajee ñaari xaaj da ngay yeneen ñaari xaaj yooyu si wàllum si wàllum xéewal kon lépp loo xam te lu fi ñëw la rek ak ak yokkutele daal lan ci lan lan ci gisagun di ñaalaat rek suñu borom defal nu tawfeex ban ban ban yeggalewaat ko si jàmm ak salaam daal. jërëjëf mm, ok ñu nekk ak beneen euh, jëriñ rek lépp jëm ci li nga xamante ni moom mooy bisu Wakana am bi ñu nekk fi nga xamante ni moom mooy euh, fii euh, jëriñ yoo tamit ñu wax ñu rek ban sirul nga yor. daanaka ni sax lu ci bari leerlu nañ ko sànq nga xam ne yàlla dogal na jëriñu daara ji nekk suñu loos waaye bu nee jëriñ moom day nekk loo xam ne liggéeyu Sëñ Tuubaa moo demee noonu ndax bu mbooloo dajee rek danañ ni jëriñ. waaye liggéey Sëñ Tuubaa ni muy doxee moom mën naa ni jëwrin tur rek la waaye li am solo rek mooy pëseef gi ak liggéey bi ndax li ñuy wax ne liggéey Sëñ Tuubaa moom ni Sëriñ Saaxi doon waxee fekkee am naa liggéey jëf lu mooy sama liggéey te jëf ju ne xam naa pay ga du ma jaawale jëfi kenn ak moroom la kon bu ñuy wax jëwrin dañuy wax ne loolu tur la waaye la ngay am ci liggéey Sëñ Tuubaa mooy sa pëseef kéem nam toll ak na ngay doxee ci biir liggéey bi kon nag mooy la waxoon sànq loolu santaan nañ ci bu baax mën naa ne ñi fi jot jaar nga interview leen ñu ci nekk ay jëriñ commission la kon liggéey bi lu yaatoo yaatu loo xam ne kon pàcc yëpp mën nay dox te kenn ku ci nekk ni ma ko waxee sànq doo joteeg sa morom dara sëñ Ibra mi nga xam ne moom nga doon wax sànq finance bi yàgg na mooy deuxième jëriñ en même temps ci daara ji kon loolu noonu ni mu la ko waxee finance bi bépp année chaque année bu ñëw rek buñ ci defoon benn su année ba ca topp bu ñëwee dañuy dañuy yokk ñettam kon liggéey dafa nekk loo xam ne dañuy liggéey suñu taamu tànk ginnaaw tànk kanam rek la am chaque at day gën di yokk kon li nga xam ne moom lañ ci dugg see nii ren di ñaan yeggale ko ci bismillah rahma yeggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin bu déwénee dañuy xayma lu ëpp loola te liggéey bi noonu lay demee te boobaak léegi saa suñ ko sumbee dinañ ci gis kàttanu suñ tubaab ndimbalam goo xam ne ni mu la ko waxee chaque jour lañ cay doon lañ ca doon séentu sax dañuy am lu ko lu ko faw xa kon nag suñ tubaab mbiram moo demee noona dañoo nekk ci waar wi rek di def waaye moom mooy dogalal moom mbiram yëpp moom moo koy doxalal boppam kon nag loola lii dañuy gën a takkaat suñu laxasaay rek gën a jaajuwaat xam ne li ñuy xaar moo ëpp li nga xam ne euh, ci lañ toll nii temm kon nag liggéey bi lool rek la ñu ngi leen jaajëfal tamit yéen bu baax a baax di rafet liggéey bi li nga xam ne noonu lay doxee xam naa foofu la ñuy tëjee suñu kàddu di jaajëfal ay kàddu ay kàddu nga xamante ne ñooy waa daayira bi waaw daayira bi xoolee mbooloo mi koo ci xool gis bëgg gi maanaam ak gi maanaam kenn ku nekk ci mbooloo mi bu fekkente ne da nga leen waroon soññ ñoom boo leen xoolee ñoom ñoo lay soññ naa ni boo leen xoolee nga xam ne liggéey bi ñoom ñoo la ko gën a bëgg kon loolu suñ tubaa ndax xam nañ li nga xam ne ki ñuy liggéeyal ñoom xam nañ ko muy sëñ tubaa sëñ tubaa boo koy liggéey li ñuy wax ni boo joxe war benn chaque jour da koy xeeb bëgg a yokk boo jëfoon tey boo jëf loo jëf da ngay da da ngay xeeb da ngay jëf ndax sëñ Touba moom li ñuy wax ne ñemul boo dafa am pay. li ma التفت مدرتي والبلوى بفلمون ليقاته الهوى له سكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنى